ah mbokk yi màggalu Touba nag fukki fan ak juróom-ñett ci warub safar ñëw nag Serigne tubaa ne woon bés bii bu dellu seetee santale leen ma ci sunu borom ah mbokk yi moo di is bu nag di jëmm ju baax taalib yëpp sëriñ Touba na leen ci jàppale nag ndax ku nekk xam ne ni ku ñëw Touba xewlu ndax Serigne Touba ko santaane woote leen ci numéro yi ndax nag am na bu baax a baax ay xewal di ay ginaar yoo xamante ni pulaay yu mag di liggéey nag liggéey bu mucc ayib ginaar yu mucc ayib ginaar yu mag lool te neex a tere legat mbokk yi ginaar yooyu nag képp ku bëgg a gaaw am ci commande bu am solo bëgg cee nag jox euh, say gan bëgg leen cee teral jëlal numéro bi 78 582 23 22 ma baamtuwaat ko 78 582 23 22 ak Modou Isbu ah mbokk yi kenn du wax ne ginaar aw ma ko ndax ku nekk xam gan yi nag faaw ñu xewlu ndax Serigne Touba nag moo santaane woon ci bés bi ñëpp mën a xewlu ngir nag sant la ko borom bi ah waajal màggal gaagoog ak Modou Isbu dara du yomb. la